que euh, benn euh, xale la bu am 13 ans euh, yaayam jël ko jox ko koo xam ni da koy jox ay cours arabe alxuraan bi affaire boobu nag amee gis nañu ni xale bi biir bi dafa mel ni luy jug. Mhm. ba ñu jàppoon ni sax feebar la. Euh, ba yaay ji ki ma xam ne moom mooy euh, soxna si nga xam ne moom la dendal place wax ni ko sama doom ji daal lii ma gis euh, ci biiram bi dama ko yóbbu hôpital parce que dafa mel ni feebar la buy neewi biiram bi parce que xale président doo foo xalaatuñu woon ëmb ci la ko nag xaritam bi bàyyee xel mm. ni ko nag su ma sañoon nga woo sa doom nga waxtaan ak moom ndax lii ma gis day mel ni ëmb waaye nag doom bu jigéen ak yaayam dañuy waxtaan au nga gëtëm ko mais waxtaanal ak moom cim xel ci la yaay ji def enquête ci xale bi mu xamal ko ni ko ki may jàngal alxuraan moo ma def lu mel nii ki koy jàngal nag euh, doomu doomu Guinée la ab Guinéen la di ab Pël Fuuta moom moo def jëf gu mel nii bi nga xamee ni nag euh, da ko daan dañ ko daan fay par mu di ko jàngal di ko jox ay cours loolu nag euh, bi mu amee la xale bi xamal ni ko kat moom yegg na ci moom ñetti yoon mhm. benn bi bi muy fàttaliku daal moom mooy wax na ko ni ko dafa am lu ma lay jox nga naan ko ndax day ubbi sama xel mhm. xiis lay doon nee na ba mu ko naanee euh, boobu fàttaliku ni naan na ko mhm. am na beneen boo xam ne dolli na ko ci def ko mais mujj na xale bi buñ ko waxee demal jàngi day lànk parce que dafa dem ba ba ragal lu mel ni ki ni dem daal dem jàngi la la ragal xale bi dafa am fu mu doon jàngale parce que xale bi moo ko daan fekk ji mhm, loolu nag bi mu amee ci lañu dem yóbbu ko hôpital bi ñu xoolee eh, la ñu xam ne xale bi kat ëmb na eh, ñeenti weer bay dugg ci juróomi weer ak lu teg. Mm-hmm. la ñu nag jël eh, wax ni nañ dem waxtaan. xaritu yaay ji sax moo xamal ni waxtaan mënu koo am parce que kii du majeurul ba ñu dem di waxtaan. kat moo ko ëmb la ku ko ëmb mm-hmm. kii am mineur la li ci mooy ñu dem ci takk der yi. bi ñu demee nag ci takk der yi di gendarmerie bu Joal bu Joal la ñu def moom mooy njëkk jàpp li nga xam ne moom mooy waa ji. téye ko teg ko teg ko li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy loxo lii nag souvent yu bu demee ni ki nii. Mhm. muy xale boo xam ne treize ans la am ñu ni dañ ko ëmbal. Mhm. ki ko ëmbal mooy ki ko doon jàngale alxuraan boo dee xool ñu bari dañ naan alxuraan gi am na sax ñuy jaar ci foofu ñii di defendre sëriñu daara yi waaye am na ñoo xam ne sax dañuy song li nga xam ni moom mooy sëriñu daara yi waaye bu ñu fàttalikoo ci historique rek moom mooy lu mel nii tamit am na sëriñu daara bu nekkoon Touba. Mhm. boo xam ne tuumaloon nañ ko. Eh, ci ay eh, ndonga yu mu daan tëddee di ay ndonga yu jigéen. yu mu daan yu mu daan ah. lim bu bari lim bu baree baree baree baree bari man mi defoon naa ci eh, émission heure de crime. Mhm. léegi nag ñu bari gis nga. muy muy muy sëriñu daara bu sëriñ parfois ñu ni sëriñu daara yi sëriñu daara yëpp jub déedéet métier moo gis nit ku nekk si jikko nga fa andi. Mhm. métier mii di média am na ñoo xam ni dawewuñu lenn lenn lenn lenn ak règlement li nga xam ne moom mooy journalisme. Mhm. déontologie éthique et déontologie seen yëfi bopp lañ ci seen yëfi bopp lañ ci lañ ci andi. Mhm. noonu nag mu amee ci takk der yi noonu la amee ci ñi nga xam ne ñooy sëriñu daara yi am na ñoo xam ne seen i jikko. lañ fa andi. yenn saa yi nga gis ñu am ndongo daara agressé na non non dafa fekk nongo daara bi jaar na fa mu war a jaar yëpp ci ba tëj njabootam. ñu soog koo andi ca daara ja kooku nag du daara ji moo ko yar waaye jikkoom jikkoom la andi ci daara ji sëriñu daara bi tamit li ñu ko jàngal mooy alxuraan ak sunna loolu nag bu ko appliqué woon yu baree bari bari doog ci dégg sëriñu daara yi mais dafa am ñoo xam ne seen jikko parce que lii nga xam ne moom la mbokk mi def xale bi am 13 ans ëmbal ko loolu daray alxuraan nekku ci daray sunna nekku ci jikkoom la def ci nafsoom la topp ci xale bi te ñaare bi nag moom mooy Euh, dafa am ñoo xam ne du ñu du xaar mukk mukk mukk mango ñor ca xaay xaay ga la ñuy dagg mango bi baxal ko def ci suukar comprendre nga commencé lekk du ñu xaar mukk mukk mukk parce que xale 13 nga di ko jàngal ba xelmati ko ba xelmati ko ba yegg ci kawam mu naan ñetti yoon la yegg ci kawam ba ëmb am ci ñu am na bi bi enquête bi wéyee mooy ndeke am na ñoo xam ne doon na leen ko proposé ba ñooñu dañoo mujj bàyyi daw dem dem seen yoon mais lan moo tax. souvent ñuy wax ne mu def ko ñetti yoon waxu ko mooy la xewoon ca la nga xam ne rek moom mooy ca kàddu yi nga xam ne moo génne woon ca daara ji nekkoon ca Touba mooy day am ay menaces. parce que am na ñoo xam ne kurus bi lañ lay wan comme li li xewoon Touba ni la loo fa wax dinaa ko yëg loo fa def dinaa la nangam am na ñoo dañ lay menacé am ñoo xam dañ lay naan dinañ lay yàq am na ñoo xam dañ la dinañ def nangam ba nga xam ni yow doo ko sañ fit gi ba wax ko seen seen seen i waajur mais am na ñoo xam ne tamit seeni i waajur mayu leen. occasion ñu leen wax seen bopp te diggante doom ak euh, muy doom bu góor ak doom bu jigéen yëpp laa yemale dafa am communication bu war a am seen seen seen seen seen seen seen diggante boo xoolee viole yi am euh, ci ci ci ci école yi day am viol yi am ci daara yi tey moom laay waxtaane ndax ki ñu ku ñuy jiiñ ni sëriñu daara moom moo def jëf gu mel nii mooy dañ koy ñaawlu euh, dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax te ñii ñu koy ñaawlool la ko daara ji yëpp di ñaawloo beneen bi nag moom mooy moom mooy euh, il faut ñu taxawaat ci daara yi mooy ñan ñoo war a jàngale ñan ñoo war a doon ay sëriñu daara nan la ñuy fexe ba. Demba Dramé mi ngi koy laajte. waaw euh, ni ñu leen di protéger mooy ci sa biir wax ñaga mhm. wax nga lu solo communication. bi mhm. war a dox ci diggante parent yi ak euh, doom yi. Mhm. xale la. 13 ans ku ne xam nañ xale la ci jamono bu yàgg xale la woon xaw nag mhm. léegi mhm. comme léegi dañuy judd rek am fit te ñemee woo waaw ah, waaw te jamono yàgg euh, xale la bu fekkee ne noonu la toll yow mi nga xam ne yaay way jur yaa war a ñëw envers l' enfant mhm. yaa war a ñëw envers l' ñàkk jot ñàkk jot seen kër lu ngeen ñàkk-ñàkk jot bu ngeen fa yenduwul li ngeen fa di ngeen fa fanaan si ah. te nag ne serait-ce benn cinq minutes bi ngay jël waxtaan ak sa ay doom xam seen journée lu ñu yendoo xam lu ñu jàng xam lu ñu fa jàngee du la wàññi dara déedéet mais lan moo tax parents yi démissionné pour la plupart parce que xale bi tam bu ko parent xëy na abordé woon wala approché ko dina am fitu wax. Mhm. ah Adja. Mhm. xam nga doom da nga koy ñemeel sa bopp. surtout doom bu jigéen. Mhm. am na foo xam ne tey jii ah, ba pare am seetlu itam ci sa doom euh, Ndella mi ngi wax léegi rek ci biir waxtaan bi danga dund lu ni mel. waaw loolu am euh, daf ñu euh, dugaloon daara ñuy jàngi alxuraan. saa bu ñu demee école bu ñu wàccee ngoon gi dañuy dem alxuraan ba benn jour sama sama sëriñ ne ma naa ko bàccal benn kolam kol bu mu doon kaalawoo comme jupe yu gudd laa soloon te dañ ko fant léegi ma yëkkati ko eh, kii ko ah, ah. waaw takk ko ndax dama bañoon mu tooy léegi ni may sëgganoon di fóot di fóot ndeke sëriñ baa ngi may xool mi ngi xool samay tànk mu ngi xool samay kooj man daal dama mel ni dañ ma ne gestul damaa gestu rek gis ko mu may xool rek sama fit bi euh, fóotal ko weere ko ba pare wàcce sama euh, jupe bi bis boobu deful dara réagirul si ëllëg si ñu jàng ba wàcc xale yi wàcc dem mu woo ma mu ñëw mu tëdd mu ne ma naa koo bës yaram bi day metti mm-hmm. comme rek sama sëriñ la mënuma bañ te boobu laa gënoon a nekk xale ma koy bësal di ko bësal di ko bësal ginnaawam ba mu yàgg mu gëstu mel ni ku ma bëgg xëcc mhm. ma ba max ko rek daw mhm. bi ma ñibbee kër ga ma ne papa bàyyi naa jàngi alxuraan mhm. mu ne ma lan la ma ne ko bàyyi naa dootuma jàngi. waaw dootuma jàngi ñu changem ma yóbbu ma beneen daara. mais mosoo leen wax après lan moo taxoon nga def loolu lan moo taxoon nga daw. après wax naa leen ko. plus mhm. tard wax naa leen ko parce que euh, c'était important ñu xam ko. exactement waaw pour euh, budul man sax mais pour la prochaine fois pour d'autres. baax na ci baax na ci waaw li feeñu li feeñu. mu ëpp soxna waaw dëgg fuuf fuuf naa la ci citeel lu baree baree bari euh, li may wax rek moom mooy nañu xoolaat. bu dee ku laal daara yi ñun ñëpp ñu jugandoo parce que ñun ñëpp ay nitu daara lañu dañoo jaar ci ay daara moom mooy ñan ñoo war a jàngale moom mooy ñi nga xam ne mooy association yi xam ne ñoom ñooy ma bëri ci ay xarit lool ñoo xam ne ñoom ñooy aar daara yi mooy ci boppam yemul rek ci bu daara defee rek ñu génn mais tàmbali bi moom mooy ñan ñoo war a yor daara ba pare xeex bi du question bu sëriñu daara defee rek nga génn mais xeex bi mooy nan la ñu war a ñan ñoo war a yor daara bu ñu xeexee ñen ñoo war a yor daara rek problème mu daara yi réglé wu. Euh, beneen ah, ah, du yomb du yomb du yomb waaw ñen ñoo war a yor daara parce que dangaa dem jàngi keneen dem jàngi. waaw xamoo fu mu jàngee xamoo nu mu jàngee mu ñëw ni moom tam dafa taxaw pour jàngale. <laughs> moom mi nga xam ne moo jàngi woon wala moo taxaw ubbi daara ni day jàng ak ak fànn bu mu mën a doon. <laughs> moom moo war a xam lañ ko ciy laaj lañ ko ciy xaar mu jëfee ko. waaw ba pare. na na xale yi na xale yi di dénoncer. wéjur yi tamit nañuy laaj seen doom yi. Mhm. du question nettali du question kàcc mais bu ñu wàccee la ñu jàng nañu jàng nañ leen di laaj. comme jamono dafa toll foo xam ne. jamono dafa toll foo xam ne dem nañ ba euh, chaque fois ñu dégg ko te taxul mu wàññee ko mi ngi am ba tey mhm. li ñu wax ak li ñu nëpp nëppal ak li ne ci suuf. Mhm. kon ñoom tam nañ jël beneen méthode di laaj seen doom yi. man xam góor wala jigéen mais ku ci wàcc dama lay laaj. sa bind tayal lan la. lan nga jaar nga yemoon mhm. nga tari ma déglu. dëgg la dëgg la loo sax daf ci am solo gis nga soxna li nga wax ni foofu laa doon euh, dootee sama baaraam sax parce que dafa am ñu bëri ñoo xamante ne dañ naan xale bi demal nga jàngi rek. boo jàngee ala sëriñ ba sëriñ ba wala ñëw dañ lay forcer des fois boo gisee sa doom di bañ di dem di jàngi laaj ko lu tax. Mhm. parce que xale bi au début day bëgg sa war dem dem mais bu demee benn instant mu réticent daal ne du ma dem rek neel fexeel xam lu tax mu bañ ne du dem. jege sëriñ bi certes mais nga jege xale bi ci boppam wala nga gis koo xam ne mën na waxtaan ak moom mu waxtaan ak moom. Mm-hmm. parce que tamit doom bu jigéen dëgg la dafa sensible am na loo xam ne tey xale buñ ko nee buñ ko supposons. nga def ko naka sa du noonu ba pare jox ko xaalis xale bi bu tàmmee xaalis danaa noonu la. ba pare nañuy dem ci daara yi. di vérifier di di nemmeeku. di waxtaan ak sëriñ bi pour sëriñ bi bàyyi xel ka ni kii kat mi ngi sàmm doom. exactement ko ah, sànni rek bàyyi ko fa. dañoo démissionné nag ci xale yi. parce que tamit daara ji nekk ci koñ bi rek nga jël sa xale. Mm. sa doom bu wàccee nga ni ko summi li nga sol mu summi nga solal ko lu bon ni ko demal ca daara ja. Ah. mel ni moom euh, euh, euh, da nga koo dàq kër gi pour mu dem ah. làqalu ci daara ji bu ñi nekk ñi yor daara yi war a am fulla ba nga xam ne yenn comportement bu ko xale bi solee ñëw da ngay xam ni kii waajuram du responsable delloo ko ay waajuram ba koroog waajuram ñëw parce que am na loo xam ne bu dee da koo def ñoom tam waruñu ko nangu parce que ah, am na loo xam ne bu dee man su ma ko defee ñëpp ñëpp joxañ ma baaraam damay jël sama responsabilité ci sama daara lii daal moo ngi xewee fële ca Joal di benn doomu euh, Guinée bu euh, nga xam ni gars yi pour la la ñuy wax euh, nga xam ne yegg na ci xaleb 13 doon ko jàngal li nga xam ne moom mooy alxuraan ba gendarmerie ju ko euh, teg loxo di ci jaajëfal nag ci information yi. Mhm. jiili bu étoile euh, jamono nga xam ni moo ñu baaxee information yi nga xam ni moom la ñu jot euh, di jaajëfal képp koo xam ni di ñaanal di jeexale rek di ñaanal ki nga xam ni moom mooy président Bougane. Euh, fee mu nekk du du place am parce que njabootu boppam ñoo ngi koy xaar ñun ñi nga xam ni mooy suñu kilifa ci wàllu liggéey ñoo ngi koy xaar ay militant am ñoo ngi koy xaar ay soppeem ñoo ngi koy ñoo ngi koy xaar euh, li may wax ni am na foo xam ne bu fa yemoon ci bureau euh, climatisé yam ci liggéeyam lii du ko dal waaye injustice la doon xeex injustice moo tax mu dugg ci wàllu politique ngir sénégalais yi loolu nag euh, dañ koy dañ koy dañ koy ñaanal yàlla bu àllarba buñ ko àttee yàlla na yàlla def ñu bàyyi ko parce que man sama noonu bopp sax yéenewu ma ko kaso mm-hmm. asumaak euh, koo xam ni kilifa la ci man koo xam ni tamit euh, responsable la ci man yéenewuma ko la nga xam ni moom moo fa nekk yàlla nañ ko àttee te bàyyi ko mercredi te loolu la ñuy xaar tamit ci li nga xam ni moom mooy justice bi